gaaw. ah. lan la man la an kinne. oui. nga ànd ak kinne. kinne ngi kër ga. ah. kinne mi kër ga. waxal billaay. xay. waaw moom bu départ rek de de boo ko woowee mu la mu si yoon bi kooku amul caaxaan. mboora nga ko yóbbu. ah daaru faal nga daaru faal waaw foofu baax tey waaj mais sóora. waaw waaw bisi laawal si sareet bi balaa wàcce soble si feneen soble soosu amul de soble su neex dafa sa suukar soble si sa suukar laa la yor. Eh, meen man du sama combat sama yoon nekkul ci moom. waaw ba tey rek dama la bëggoon xamal ne rek ni li fi jotoon a xew yëpp dootu fi amati kenn mbenn dem na damaa ñëw jéggulu si ñëw pour xuloo ñëw ma pour tey santé te ma xamal mbeen moom li mu def fooru ko def waaye kaawit li mu def fooru ko def ndax moom magum jëmm la warul woon nangu mbenn di ko jël di ko diri ba di ko yóbbu biir néegam ba di ko defloo yenn nit ba filmé am fa allo Ameth allo maam góor maam góor man maa man maa ma ma maa sol say sa yére bi ñu nduróole bi caay bi waaw maa ko sol génne defal nank rek man xam naa li ngay wax waaw d' accord d' accord d' accord accord après dinaa la expliquer lan mooy waral lu lu ma ñëw fanaan foofu parce que bi ma ñëwee dañ ma wax da nga am kaaru ngoon ngay dem moo fanaan ma xëy suba gi nag rek saa si sama yére ñëw affaire la maam góor yooyu affaire la waay wax naa ko Omar affaire la waaw. dootuma ko nangu ndax dañoo bokk seen ndey ak baay ba pare ñu matadi ñun nag en tant que jigéen en tant que ay soxna. war na ñoo mën a xool nan lañ war a mën a def ba ñoom ñii ci lii ñu ne ñu génn ci kaaw ba gisuma ko démb ba tey gisuma ko ci biir kër gi te loolu du yoon yow soxnaam nga këram gi waru waru fee waru fee ñu xëy sa naan ani kaaw fa mu faar fanaan ak fan la jaar ak kon nga dem jëli sa jëkkër jee indi ko ci biir kër gi mooy sa sutura suturaal sa bopp suturaal sa borom kër